Promotor Mulai Mulai Mulai waxtaan ak le grand. waaw kii moo toj koor. <laughs> kii mooy amu war ba keroog ana yàlla mi amu. yàlla mi baa ngi nii mi ñu ko ah, bàyyi <laughs> mais mi xanaa. ñu xanaa ci ko woon mot mi. mot mi lay la maa koy tëgg si defal loolu. wa wala Ibulaay dina dëgg revanche bi wala yàlla. ah Ibulaay sama dugub Zarko ak Saawaay. ah li ma jël ci combat bi foofu maa yàlla. mais la pantel noir xanaa doole moo ko jox ñaareel. waaw kay na ma la jox mais nuyu naa la Abu. jërëjëf Charles mais yaa ngi taxaw grand promoteur. waaw Ibrahima mais kii lu mu tëgg xam nga lan la. Eh, ay combat yi gën a la taxaw. amu kii yan combat la tëgg. combat yoo xamante ne àdduna bi yëpp di xaar ay jour journée Ibrahima. waaw fi mu fël xalaatuma ne sax moom dina fël la fël. combat nooy nepp yu neex. yan ñoo nooy yan ak yan. xam nga tey bu Ibrahima tey euh, euh, Kayre. ak Zarko ah, loolu événement la événement la lamb jooju dafa dëpp loolu dafa rëy mais loolu man grand grand promoteur yi koy dëgg man fa laa ko doon xaar ah. man Ibrahima dama xamul fan la jaar gars yi mais xanaa xool ko moo looyu la ko jox moo loola <laughs> nga dëgg mais moo loola moo loola mais roi des waaw bagage la ko jox bagage jox mais bagage ba la la tax Ivoire ak Sénégalais yëpp. yéen a baal yàlla yàlla boole baal. mais lépp jàpp. lépp jàpp alhamdulilah. nga ne Mor Gankan kenn musu na ko baax bu neex la. kenn musu kaa daan Youssou rek ko su ma ngay teerale. ne ko ah mu ne ko ba ma jaarale sa kaay Mor Kang Kang nee na moom gëmul luy daanu. non gëmul loolu. gëmul loolu te tamit gëm gëmul la Mor Kang Kang jar la. ah xam nga boo bëree 11 combats ba nekk yàlla dina def la jàmm. waaw loolu tamit xam nga mooy loolu. da ngay xew loolu. mais moo ngi bëri booy bu dangereux doomu Balla Gaye. waaw Youssou moom mënoo ko tax. Ah. tamit Youssou xam nga grand champion la yàgg na ci làmb. dëgg la mais nag su ñu xale boo xamante ni ah. moom daal xam naa ne moom ñoom daal yëpp leen liggéey moom. mais le 18 juin na arène nationale bu day yëngu. waaw bëgg naa mu yëngu de xam nga rek. mais day yëngu si bu baax a baax a baax. waaw moo ñu làmb xam ne xam nga seen frère moo woote jour boobu noonu. commencé nga promotion combat bi. waaw commencé naa nànk nànk waaw am naa lu yàgg lu nekk fan yii rek maa ngi doon si déggoo sax incha allah. face à face yaa ngi koy waajal. maa ngi waajal plateau yu garaaw. open press yaa ngi koy waajal. yu garaaw incha allah ban télévision ngay signal. waaw maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci am na ñu may waxtaanal. incha allah xam naa lu yàgg fan yii rek dinañ ko suivre incha allah. mais le 18 juin est-ce que xam nga jour boobu la déggoon dama l'appel l'appel du 18 juin. ah. <laughs> yow moom yow yow am na loo xam ne yow laa koy bàyyi. yaa ko seet si communication bi incha allah. mais je suis mbaa dinaa fi gis le roi des arènes. incha allah boobu mënul ñaar mbaa dinaa fi gis Papa Sow. ñëpp Papa Sow roi des arènes ñëpp mbaa dinaa fi gis Franc. ak yeneen champion yëpp nag xam ni xam nga. Modou Lamb moo woote. incha allah ñu ngi invité Modou Lamb yëpp dinañ si gën a communiqué incha allah. mais est ce que est ce que Zarko bi nga tëgg est ce que grâce yéen a ko est ce que CNG baal na ko. non CNG baalagu leen. mais mais ñi ngi doole di ñaan rek yàlla baax na. waaw ah. mën naa mën naa leen baal bu leen baalee ñu programme bu leen baal la ñu bàyyi ko déwén incha allah. daal ñi ngi ñaan CNG yàlla leen baal incha allah. moom ak Ada Fass yëpp. dëgg la boo ñaa ngeen di njëkk ah? rek. kan nga gën a bëgg ngay yàq. am man de su ma tooyee amaa moo jël bëri. boo sañoon. amaa waaw amaa ngay njëkk bëri. mais lu tax ngay taamu aama bu ñu. non dara quoi boobu moo njëkk a taxaw. boobu moo njëkk a taxaw boobu moo njëkk a taxaw ndax combat boobu la Sénégal yi gën a soxla problème. waaw man la man la gën a bëgg moom. est-ce que du ma war a gën a bëgg. ah. loolu si gën a yaatal bu soobee yàlla xam nga dana yokk production bi gars yi gën si jàpp ah macha allah yàggoo de bay yàqoo fi yaa ngi doxal yaa ngi jàppale gars yi xam nga tey boo kenn boo ko jënd boo ko jënd sa micro yokk promotion bi. te ñu ne yàlla daal di ko jeex yàlla yàlla fay ñu baax